asalaamaaleykum mbokk yi teela a àllarba fukki fan ak ñett ci weeru gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa ñaar fukki fan ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñett ak benn fukki fan ak ñett dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci àllarba ji rafetul ci dara ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi tudd sax sell ak sax cant maa ngi lay ñaan nga jéggal ma subhaanaka allahuma rabbana wa bihamdik allahuma axfir lii xadiisu bi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bëgg leen seen boroom ubbi na ab buntu ci wunte asamaan di leen puukarewoo ci malaaka yi di wax naan xool leen sama jaam yi joxe nañu jullik farata ba toog di xaar geneem xadis bi ibnu maaja moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam absiru hada rabbukum qad fataxa baaban min abwaabi sama yubaahi bikumul malaayikata yaqul انظروا إلى عبادي قد قدوا فريدة وهم ينتصرون الأخرى رواه a ماجه waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom tisbaar benn waxtu wu tegal fukki simili ak juróom-ñett wu toftal fanweeri saa tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal fukki simili ak juróom-ñett yu toftal fanweeri saa timis juróom-benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom-benn gee ñaari waxtu wu tegal fukki simili ak juróom-ñaar loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak